wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk julli ji tedd yi fi teew bokk taalibe yi tedd yi fi teew ci bis bu mag bii nga xam ne ñu ngi koy defal suñu kilifa gu baax ga ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yal na suñu borom dolli ay leeram te taasuñu ci barkeem ci jëmmam ju tedd joojee nga xam ne ñu ngi ci wetu booy juróom wu tedd wa Cheikh Mouhamadul Fadil ak magam ju tedd ja Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh waaye nekk ca wetu maamam ju tedd jee te jege ko lool Cheikhul Khadim muy tawféex ju rëy muy loo xam ne du luñ mën a dabaatal ndax lu faat la kon tawfeex ju rëy la am ndax mooy ku mujjee denc ci jumaay Tuubaa loolu tawfeex ju rëy la ju ko suñu boroom defal loolu day ko xam naa nag waxtaan wi tey dana xaw a jafe ci man tuuti ndax yëg-yëg ndax loolu suñ borom koy def li ñuy wax lisaanul maqaal day am waaye lisaanul xaal day am waaye bi ci di yëkkati lakkal fadlu yaa muxtaaru sama xel dafa dem lool ci Cheikh Mahmoud Lamine Bara moo yëngal moo yëngal sama xol lool tey ndax fuñ mës a génne di ànd rek moom yi moo ko daa yëkkati moo tax fu ma ko gisee dama ko koy faral di wax sax fu ma ko déggee sama xel dem ci moom moo tax nag mu teewaat ci sama jëmm lool te moom bu sax xel demee ci moom rek lu bari dalay fàddu kon Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo ko fi wuutu ñu ngi koy ñaanal suñu borom dëgëral ko te kattanal ko ndax kat jàmbaar la lool te nit bu nekkee ci yoon ñépp ko war di sant di ko gërëm cant gi nag waaw góor rekk la waaye jàmbar la ndax ba suñ baara bàyyi ko 2010 la woon ba nag ni kon fukki at ñaar wala ñett mat na ko kon bu taxawutoon na war a taxawe lu nit ñi bëgg bëgg Cheikh Mouhamadou Lamine baar ak lu mu ko jiji ci ñoom kenn ku ne danga koy dund sa digg moom ndax foofu la àdduna toll kon nag moom dañ koy ñaanal bu baax man sax mutuma seer ci moom ndax sama digg ak moom ndax yu baree bari yoo xam ne lépp rafet dara loo xam ne danga ko fàttaliku sa xel rëcc ci mos am ci sama digg ak moom kon dañ koy ñaanal rek lii ko suñ Cheikh Baara Abdou Lahad seereel léegi doy na sëkk muy nit ku dëggu la léeg-léeg bu ñëw ci jataay ci cir bi ma jox ndax looloo indi lii tey ndax xam ngeen ne bi mu agsee forcé naa ko lool ngir bëgg mu toog ndax jataay bi da koo laaj micro waaye moom yëg-yëgam ak jàpp gi ma jàpp damay moo tax sax nanguwute yëkkati kàddu mu ne kàddu yëpp doo koy teg ci sama loxo kàddu yi jëm ci cant ak ngërëm ak kàddu yi jëm ci taalibe yi kon la ca jiitu mooy sant ki fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne moo fi Serigne Touba tey ñu koy ñaanal suñu borom dëgëral ko te kàttanal ko ba mu àggale mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa kon moo ci jiitu ndax moom ginnaaw bu mu doonee Sëriñ it xam ngeen diggam ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ndax kenn du fàtte kat mu rëy mi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Cheikh Mouhamadou Mountakha defoon na ko ci moom mooy bi bi mu liggéeyee jàkkee daaru ndam ji ba mu àgg mu dajale ñaar fukki million ak ñaar juróom ñaar fukki million ak ñaar ak xam ngeen fi toll boobu ci at ak fi mu toll ci diggam ak boroom ak fi toll ci fi ko nit ñi teg waaye lépp gisatu ci dara mu laxasaayu takku laxasaay te loolu njàngale mu rëy la ndax ñun ñii kat dangay xool nim ñu suutee ci lépp ëpp ñu xam-xam gën ñoo ragal yàlla ëpp ñu gën ñoo jég eh, ëpp ñu pësteef lépp ñu waaye ñooñ ñi daanaka kenn du kenn du ci laxasaayu kon Cheikh Mouhamadou taxaa loolu am njàngale la ci jubloon te ba mu koy def def maa woo ba ma ñëw mu ne ma lii may def de mënoon naa dajale àddee ji sax yónnee ko waaye li ma ci jublu mooy ñi ma bokkal Serigne Touba te may yéene leen liggéey bi laa bëgg ñoo ñëpp ñu jàngal leen ni ñu war a def moo tax ma bëgg ñëpp gis ko xam ne moom mii fi Sëriñ tamate ko sëkk ñun ñëpp dañoo war laxasaay topp ci ginnaawam te di ko liggéeyal fekk naa ko bis itam booba Cheikh Mouhamadou Lamine Bara amu fi ay ñeenti weer wala juróom kenn la ci kilifa yi gën a mag ci yoonu murid mais ak si fekk ko ci weer ndaay wu jëkk wi muy wax ak moom ba muy jeexal maa ngi dégg mu naan ko sëñ Baara de yàlla dafa def yàlla dama teela yee ci mbiram ndax 1950 58 ñu daje Makka ca déwén sa fu ma ko ne jàkk na sama day dem ci Sëñ Tuubaa laa ko jàppam Sëñ Tuubaa ba na gëni kon loolu Sëñ Tuubaa am lu mu leen doon boole moo tax mbirum Sëñ Tuubaa lépp rek suñ borom noppi na ci aajo ju faju la lu suñ borom nangu la mu ne ko nag kon bis boobu ba nëgë ni fu ma ko ne jàkk Sëriñ Tuubaa rek laa gis ci moom tammate ko kon moo tax damaa bëgg ñun ñëpp ñu laxa te def yoon na say topp ci ginnaaw loolu maa fekk bu di ko waxee ba muy jeexal kon noonu la siggee seen diggante demee sëriñ aboom Cheikh Mouhamadul Fadil itam mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mouhamadul Fadil yàlla suñu boroom dolli aw fanam te. dolli kàttanam mottali yéenam ci biir njabootu Cheikh Mamadou Fadil ak njabootu Serigne Touba gépp bàyyiwuñ kenn ndax boo xasee lim rek faw boo yeexee nga fàtt kenn waaye li am solo rek Cheikh Mamadou mi ngi sant ñu mboolem ko fi teew ña ci jiitu nag mooy ñi mu bokkal ndax ñi mu bokkal Serigne Touba kat kenn desut ñëpp ñëw nañ fi. ñëpp fi teew ànd ak moom bis bi kon nag bu ñëpp bu taali bi yëpp ñëwoon te ñëwuñ ñoom dana yëg ak wéet kon nag yëgutu wéet ndax yëg na ne yéen ak moom yenn bokk bis bi kon maa ngi leen di koy jotli ak cantam ci turu mboole njabootu Cheikh Mawlid bi baar gépp di sant it taalibe Serigne Touba yi nga xam ne way juróom bu tedd wax ne lu ngeen fi séen rek dong yaa fi def Cheikh Mouhamadou wax na ko keroog ci bi nga xamee ne Abdou Lahad Ka ñoom ñii ñëw nañ fi di ko siyaare si ci commune bi nee na nañ xam ne ñu ñëpp ay dong lañ loolu nag am njàngale la njàngale la moo xam ne luñ fi fekkoon la te ñu wër koo dund mooy ndegam moom mi fi nekkee Sëriñ Tuubaa moo nangoo doonab donga kon asama ñun kon sëriñ bi leen mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jottale cant ak ngërëm nag ki nga xam ne moom la fi président de la république Macky Sall yebal di ministre Dame Diop nga xam ne xam ngeen lim doon ci kër gi sëriñ bi nga koy sant di ko gërëm ak mboolem ñi mu àndal ñëpp te buñ ci tuddee sama jërbaat di sama doom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké na sëriñ Cheikh Gaynde ma nga xam ne moo tuddee ñaar yooyu rek xam ngeen lim doon ci dëkk bi kon loolu doy na sëkk. ak mboolem ñi ñu àndal di ñi ci des ñëpp di préfet sous préfet ñi àndal délégation bi yëpp moo ko moo leen xasee tudd rek mën nañ leen yóbbaale di ko sant bu baax ci yónni gi mu leen yónni ndax lu ko war la mu def ko waaye nit ca la ko war lañ koy sante yàlla defit bis bii di bisu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñëpp ci war a ñëpp ko war a yëg ñëpp ci war a yónnee waaye kenn waru ko ca jito ndax li tax ma wax ko it daa am lu ma ci xam loo xam ne xëy na ñu bari xamuñ ko ndax bi yàlla defee bis bi nga xam ne ci la mission di jeex ci assemblée keroog bi coow li yëkkati ko am na lu coolum tollooloon Dakar dama ko xaw a fàtte nag lu fa xewoon te xamatuma lu mu doon waaye ak digg bëccëg daal digg bëccëg la ma Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke woo ma agsi mu ne ma kat damaa bëgg nga woo Abdoulaye Wade waxal ak moom ci mbirum Macky Sall kon loolu la ci xam nit ñu bare ngi wax waaye jàpp naa ne ci jataay boobee man la ci xam am na ci wax mosuma ko nettali te nit ñi xawuñ ko kon seen diggante lu yàgg la beneen ba ci mujjut alxames ji nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci liñ ko fi jëlee di ko yóbbu Ndakaaru bis booba yàlla dafa def moom ki jiita réew mi dafa jóge ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara siyaare ko ca la ko mujj gise ñëw sama kër bi ma waxtaanee moom ba tàggoo moom ba mu génn rek ma dugg ci biir néeg bi julli gee fi ma sëlmale rek wax moom la ci ëpp ci booy seere mu doon ko xam ne kuy dund la nga xam bu wax ji wër mën koo weddi directeur cabinet président Abdoulaye Wade di Habib Sy woo ma téléphone wax ma ne ma damay dégg ñu ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara dañ koy indi Ndakaaru ma ne ko loolu de yaakaaruma ko yëguma ko de mu ne ma ah te ngaa vérifié waat bu baax yaakaar naa am na ma coupé woo Cheikh Moustapha mii laaj koo ko mu ne maa ngi nii tolloo ngaabu ko dafa jàmp moo tax munuñ laa woo ma coupé woowaat ko ne ko wax nga dëgg de am na de ñu toog ñaari minutes ñett président Abdoulaye Wade woo ma laaj ma ko am lu ma ca wax loolu du waxi mbooloo ndax léegi jamono ji dafa xew dafa xew lu accéléré ñu wax ko ci biti te sudurul ahraari qubuurul asraari mbóot moom fu mu ba fu mu tuxoo rek lu bari dana fa jóge ndax Cheikh Mahmoud Lamine Bara yàlla da ko defe muy jëmm joxe ne mësta fekke lu ñaaw mësta seetaan ku ñuy néewal doole te loolu mën naa ci seere lu bari am na ci boo xam ne si mursalaay mii ñoo ànd keroog boobu ab laa am na lu mu faatuli woon maa moom ma dikkee ñoo ànd donc jaali ja bañ demee bañ waxee ba jeexal bokk na ca la ko suñ baara wax ñaar duma ko fàttali mooy raay bi de boo fexewoon ba diggante njaarim ak Tuubaa nga dekkalaat ko daanaka man sama aju faju ma moo tax bu yàggut am na ñu am procès ne dañ ko bëgg a def may leen lii de suñ baara laa njëkk dégg ci làmb jam mu itteel ko lool ba ca dollikut ba ca dollikut mooy Idriss Seck mii tey suñ baara ne ko bu ma soñoon de li ko yoon di toppee nga dindi ko mu set loolu ma ko fekkee boobu ma dikkee ñag mooy nekk ministre de la société ku ko laaj dina ko xam noonu la demee ba yàlla def ba mbir may jeex man mii la président Abdoulaye Wade woo wax ma ne woon Idrissa Seck xamal ko ne ko la ma tegoon ci lépp teggi na ko daan ma cee tegal ay kàddu yoo xam ne moom fàttewu ku ko laaj dana la ko leeral kon yi fi xaw bari na lool waaye yi ci ëpp su ko wax waaye nag loolu moom waxeeru àdduna la àdduna moom moo baaxoo noonu lu ne day xew lu ne léeg-léeg nga dégg nit ñi nettalee ko noo xam ne bokk ak nam demee maa ngi koy wax ma dikkee nag léegi fekk la ko indi mooy daaw bisu Kazu Rajab ni ki suba daaw boo war a fekkee coow ya xewoon ci réew mi xew Cheikh Mouhamadul Mountakha woote man ak délégation ba mu doon yónni ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci almuarada te mooy ku jëkk politique bi sëriñ Bass Porokhane jiite woon ko ak sëriñ Bassirou Mbacké mu Soxna Xadi ak maître Madické ak Makhtar Sourang ak Mamadou Diop Decroix ci biir waxtaan wa nag ba ñuy waxtaan nag Madické di leen nettali ñoom yoo xam ne du ñu mën a wax ci rajo waaye ci biir wax ja ñuy wax ba àgg ca la fi xewoon ma dikkee ne loolu de Sëñ Bass mii moo ko lijjanti te yéen a ngi dégg ku ne ñu naa moo ko lijjanti ñoom ñu teg ba wax ja xóotee ñu ne sëñ bi dangaa war a bind ndax ñi nit ñi xam loola itam danaa ci nett lu tuut lu gàtt ndax du ko fàtte bisub alxamis la dama xëy ci suba Cheikh Sidi Moukhtar woo ma téléphone Cheikh Ndiaye jox ma ko mu wax ma ne ma dama bëgg nga wax ak président Abdoulaye Wade nee ko li mu yëkkati na ko teg ci suuf ñi ne ci kuj gi na wax ak ñoom wax leen ne ñoom itam nañ fexe ba bañ a indi fitna ci biir réew mi yàlla def ñaar laa ci jot keroog muy. président Macky Sall mi te jot naa ko ak Tanor ñoom it ñu am luñ ma wax ci lay tax jàmm mën a am ma woo président Abdoulaye du far fekk mu nekk ci conseil des ministres bisu alxames ma toog ba fekk siñ biir wax na ma naa def déclaration ma toog ba bëccëg bëccëg ma woote ne quatre heures nañ na journaliste yi ñëw président Abdoulaye woo ma téléphone wax ma ne dégg naa sëñ bi dalaa yónni ci ma ne ko ah ma bu ma sañoon de bala ngaa def déclaration bi nga ñëw ba ñu waxtaan bu noppi nga doon wax ma ne ko ah baax na fekke ñi doon jël ña nga toog ci kër gi di ma xaar ma dem ba ma demee Karim Wade képp laa fekk muy génn ci biir biir mel na moom laa fekk ci kaw ba ma duggee. ñu nuyoo jàmmante ba noppi ma wax ko li ma sëriñ bi yónnee ci bëgg jàmm am ci réew mu ne ma ci suuf ba tey de kilifa yu bari ñu ngi may woo kilifa diine yu bari woo nañ ma sama xarit yi ci àdduna yi ñu bari may wow ba ci tubaab yi ba ci président yi waaye boobu ba nëgg ni sama kàddu waaye nag ndegam moom mu fi nekkal Sëriñ Tuubaa ñaan na ma nag lépp dinaa ko teg ci suuf mu daal di mu yëkkati téléphone woote assemblée jot Ousmane Ngom ak Cheikh Tidiane si ñoom ñaar ñëpp ngi dund ñoom ñaar ñëpp a ngi dund mu woo leen téléphone wax leen ne leen xalif général des mourides Cheikh Sidi Moussa dafay yónni daal tudd ne maa ngi nii toog ci wetam nee na dafa bëgg ma teg lépp ci suuf. ba mu leen ko waxee ñoom ña ngay toog ña ngi may dégg ñoom ñu ñoom ñu gàntu ne ko ah président fi weesu na ndax li ñu waroon def lépp def nañ ko ba noppi li ñu waroon def lépp def nañ ko mu ne leen xanaa dangay dégg da ngeen di li ma leen wax sëñ Sidi Moxtaar moo yónnee ci man ñeen naa teg lépp ci suuf ñu ne ko président débat yeeg yëpp def nañ ko waxte képp jeex te bu ñu ko defee day jàll te coow li amul solo te état. bu rikkilee bu xasee dellu ginnaaw rek day néew doole mooy leen daal lii daal lu ma ci mën a fekk rek jaral na ma ko jafe ndigalu sëñ bi daal a bëgg naa di waxante ñoom ba ñoom ñu bàyyi leen jàppoon mu ne ma kon nag léegi kon dégg nga kon léegi jeex na ba ma fa jugee laat départ laata may àgg sama kër wala bi may def discours laata may jeexal génn nañ communiqué ba xam leen teg nañ lépp ci suuf. kon yooyu li ma ci xam te man koo wax dafa bari waaye da ci bari loo xam ne nit ñi dañ koy wax te dañ koy waxee li ci ëpp du demee noona tey muy yomb lu yomb wedd waaye li Abdoulaye wax léegi rek tontonte ak weddente amul solo li am solo rek mooy li histoire di indi kon ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu doom sëriñ Cheikh Abdou Baara Doli moom itam way juróom sëñ Baara day sama lépp yàlla def na bañ ko falee la ñëw indi ko fa moo magam sëriñ Cheikh wax ma ni ma say doom lañ say bi lañ lépp loo leen war a digal def leen ko kon ñu ngi koy nuyu di nuyu ñi fi teew ñëpp bàyyiwuñ kenn di nuyu sëriñ Abdoul Ahad Kam yi nga xam ne moo doon wax léegi moom it di ko ñaanal moom itam. lii ko sëriñ bi dénk Ablaye Dia wax Ablaye Dia ngay wax Ablaye Dia ñu moom itam ñu ngi koy nuyu di nuyu ñëpp kon daal li ëpp solo rek mooy waxtaan ci borom bis bi ndax moo fi dajale nit ñi kon kii ñuy waxtaan di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jëmm ju màgg la inna ibrahima kaana ummatan waaye moom mii di cheikh Mouhamadou Lamine Bara mboolem jikko yi siiw ci cheikh Mouhamadou Fadil rek ko ci moom ba ci solo nit la woon ko woyof cheikh Mouhamadou Fadil ko tudd saxeet dem ci woyof cheikh Mouhamadou Lamine Bara jëmm la woon joo xam ne ku tabe la woon ku tabe la woon ci darajaam tabe ci alalam ndax bañ ne ko ba amoon na carnet boo xam ne ku ma sa am soxla boo dikkee boo ko lebe lebee sax mu yëkkati xaalis lebal la ngir bëgg dimbali te loolu yàgg na ko def jëmb la woon joo xam ne itam danaa wax ne soxla su doomu aadama soo xam ne bu ma yëkkatee sama téléphone yëkkate sama kàddu mu faju loola du du du du du tage ci man jëmm la woon joo xam ne itam ku bëgg Sëñ Tuubaa la dafa doyloo Sëñ Tuubaa lool boo gisee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara amoon yaqin dafa doyloo woon Sëñ Tuubaa yaqin la amoon mas naa ko dégg ci ku màgg ci wàkkat Sëñ Tuubaa yi mu ne moom sikki sàkk wu dafa am yaqin mu doonoon jëmm joo xam ne itam foo ma sa gis sa xar kanamam rek day da xam ne jëmi Cheikh Modou Fari ju taxaw gi Cheikh Abdou Khadre Mbacké de daa wax ne sëñ Baara de lenn képp la wuteeg sëñ Fallou mooy xees ak ñuul waaye kenn mun leen a xam ba boo xoolee seen foto yi sax léeg-léeg sa yaram day daw day mel ne sëñ Fallou nga jàkkaarloo mu doon jëmm joo xam ne lii alaaj njaay seere léegi te lay wax ko ne képp koy gis muy bàggante jumaa ji fashhadu lahu bil iman kon Cheikh Mouhamadou Lamine mu'min la muslim la waaye muhsin la ndax mu mu'min la ndax ku taqoon a jàkk la këram ji sax li muy jege jege jumaa ji dafa daa def jàkk fu waxtu julli jotee lu mu def bàyyi ko julli ba noppi ajjuma it mosu ko manqué kon moom bu dee ci wàllu ngëm ngëm yàlla dara dee su ca bu dee ci wàllu lislaam it muslim la ndax la ciy firnde mooy gis nga yoonu màkk ni mu ko fonke woon lu ëpp ñeent fukki yoon yaakaar naa lu ko jege dem na ko màkk loolu boo ko doon lim ci Sénégal xanaa boo nee benn du ñaar kon moom ku fonk ponk lislaam bi la Muhsin jiit mooy li ma doon wax léegi rek mooy ku rafetal lislaamam la waaye ku rafetal diggam ak nit ñi la Cheikh Mahmoud Lamine Baara li rasulillahi di wax ne al muslimu man saliman muslimuna nee neena ab jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ne jullit yépp mucc nañ ca làmbiñam ak i loxoom sëñ Baara mësatooñ kenn te dawul fayu ne jëmm ji amee ak it ni la ko yàlla defe muy ku lewet koo xam ne boo jaxasoo moom danga naan du suñ baar moo doon dégg mu doonoon ku am kóllëre ndax kóllëre gi sama digg moom moo ko indi maa ngi fàttaliku keroog ba ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara indi mu may tuddal si kenn ci sama kër keroog yéene jëm ko defee kàddu yu baatindi yam fa yam yam fa waxe ku ko dégg ku ne xam nga ni suñ baara ku jege woon maamam la ku moo Mouhamadou Farid tibbal ci li ko suñ borom defaloon la ca mooy xam loo xam ne nit ñi duñ ko xam kon moom jëmm la woon joo xam ne ku doon waxtaan ci moom fii ba suba du jeex waaye nag li ñu war a jànge ci ak dundam nag mooy jéem ko ci jikko yi nga xam ne yàlla defoon na ko ci moom moo doon jëmm joo xam itam ku ñeme woon responsabilité la daw ko laq lim xalaat yëg ko rek loolu lay wax maa ngi fàttaliku fii ci aliya keroog bi nga xamee ne sëriñ Abdul Ahad Mbacké mi jox na ko liggéey jumaay Tuubaa ji di ko ko liggéeyloo ne ma def naa liggéey jëwriñ ji booba njëwurug Sëriñ Tuubaa gépp fi noonu ak lépp ci bokk yi ak lenn ci seex si mu defal leen teraanga yu bare bari di waxtaan ak ñoom sant leen gërëm leen wax leen leneen damaa bëgg lépp lu ma nekk ngeen di ko xam te di ko ànd ak man ndax fa suma yéene daal liggéey Sëriñ Tuubaa bii ma dee ci def loo xam ko ànd ak yéen ba mu noppee ne leen nag Basiiru mii nag laa teg ci kanam mu ko mu di ko saytu booba la ko ñëpp dégg na bañ noppee mu ñaan ñëpp jukk baat ba mu baat ba mu ca teg nag moo moo moo moo mooy kàddu gu xorom mu ne ah dama xam ne kat lu jar na bu néew ci ndax moom loo xam ne dëgg la te yàgg yàgg dañ koy xam moo tax ma léegi naa naa leen ko leeral rek mu jeex kon moom dafa ñëwe woon responsabilité ci lépp itam lu mu war a lu mu war a bañ di ko bañ waaye itam amul labir ci ñëpp yàlla suñu borom def ci moom itam muy ku am wilaaya loolu nag du kiimaan ci doomi suñu fàllu ndax nawet bi mu fi mujj fekk teel na lool ndax ñu bari nga koy nettali waa man ci wax na ko ñu bari nag waa man ci ñoom ko njëkkee wax laa bokk ndax dañoo toog ci biir néegam ba caag bi mooy nawet bi ren dana teel lool maa ngi nii di ko séen de ndox mi de maa nii di ko séen te fekk at mooma météo national ak international bépp dañ ne ndox mi day day day yeex te tuuti suñ baar ne nawet bi dana teel lool te dana barkeel yàlla def suñ seexum sëriñ son bi siñ seex say ànd ak ay rakam suñu Abdou Lahad ak suñu Abdou Samad siyaare si ko booba kasturee ñetti fan a ci des wala ñeent wala ñaar bu ma jumut boo fekk nawet baa ngi jub si tawugut bañ fa demee mu jaaraat ak ñoom fi mu jaar ak man nee nawet bi da ngi agsi ndox maa ngi nii may seen suñu Cheikh Seye na ko xanaa kon danga koy téye ba màggal gi jeex bokk mu ne ko xanaa kon ma téye ma téye ko ma ko ba màggal gi jeex yàlla def suñu bisoot ba mu fa jugee moo woo téléphone sa wax ma ko ma ne ko wóor na ma ne ni mu ko waxee ni lay demee li yàlla def itam keroog bañ duggee ci cérémonie officielle ba ñu waxee ba jeex ba ne wasalaamu aleykum taw bi sotti ko kon moom. mbiram lépp lu mu wax rek lu ko leer la te daanaa toog yu bari mu di ko waxtaan ak man yoo xam ne ku amu ko xam-xam dangay xam ne kii mi ngi fi waaye mi ngi wax ak ñene barsaq ndax mas sañoo toog ba càgg di waxtaan di waxtaan ba càgg mu ne wa suñ bas baa xam nga ne ñi nekk barsaq dañu dañuy togg ak ñoom nii may togg yéen ma xam ne sëñ bi wax ji ko rëcc mu na ma ni ñuy wax ak de ni la ñuy wax ak ñoom ci biir néegam boobu mu ne ñëwoon ci kër sëñ Fallou fa la ma ko waxee kon moom yàlla suñu borom dolli ay leeram te taa suñu ci barkeem te it ñu gën a góorgóorlu sëñ Moustapha mi dama ko koy faral di seeral waaye loolu la ma ci jublu bëgg ñëpp di ci roy tàmbalee ci sama bopp man ñëpp di ci roy ndax. waaye juróom bi ngi fi bàyyi ko 2010 ren la ci fukki at ak ñett président Abdoulaye Wade am na fekk ñaari at ginnaaw bi waaye boobu ba nëgë ni bu saa su fi président di jëw muy ci moom di ci président Macky fu ma ko woowee téléphone ko mënoo ñàkk ñëw danaan ma bu ngeen fa teewee rek doy na kon ku doy loolu li ko Sëriñ Tuubaa la kon loolu ñun ñëpp ñëpp ko ci war roy ngir xam ne kat sëñ Tuubaa lim ñu defal du jeex mukk ci àdduna li ñu sëñ Tuubaa defal du jeex mukk ci àdduna léeg-léeg mbir xew nit ñi di wax ma leen de xanaa kuy xalaat na xalaat mbirum boppam waaye mbirum Sëñ Tuubaa mu kenn mënu ci dara ndax du ñun bu doon ñun man na man gàllankoor mën na ci wala lu yàqu am ci waaye suñ yónniwu ci Sëñ Tuubaa ko liggéeyal suñ borom ba suñ borom faye ko ko képp koo xam ne nag Sëñ Tuubaa li ko yàlla defal neexu la ñëpp la war a yërëm ndax ci coono ngay dëkk ndax moom kat moo waxoon ne qulubu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaquuna maaraamu wala baba nee na bépp xol boo xam ne boo ko xaroon danga xam ne kii sama xol bëgguma kooku du amati jàmm mu ko ci àdduna waxoon na it ne wajhu lasi yuhibbuni yabyadu yawma wujuhi shuhada tabyadu yow yàlla suñu yoon na nga weexal xar kanam képp koo xam ne sopp na ma bis biñ fa na nga weexal xar kanam kon loole itam képp ku bëgg Sëñ Tuubaa sam xel day dal sam xel day tey te jàmm rek ngay am loolu Sëñ Tuubaa ñu ko defal kon nag nañ gën a góor góorgóorlu bu baax te xam ne defal nañu loo xam ne waxoon na ko nee na nee woon na defal naa leen loo xam ne buur du leen dàq fu muy tëdd buur du du leen dàq lu muy lekk buur du leen dàq lu muy sol te kuy rëbb buur teggi leen kon li ñu war rek mooy doyloo Sëriñ Tuubaa te bañ a jaxase mbirum Sëriñ Tuubaa mbirum àdduna rek moo ko àdduna ñu ànd ndax wabtaxi fi ma aataaka llaahu daara l-aaxirata wala tansa nasiibaka mina dunya ku ne cër ba nga am ci àdduna suñ borom la ko fagul waaye li mbirum Sëriñ Tuubaa daal rek ñun ñi nga xam ne Sëriñ Tuubaa lañ yaakaar di taalibe Sëriñ Tuubaa nañ fexe ba buñ jaxase mbirum Sëriñ Tuubaa ak mbirum àdduna buñ ko defee nag Sëriñ Tuubaa mu du feccale saako Cheikh Abdoul Ahad moo ko waxoon buñ defee loolu Sëriñ Tuubaa danañu gën a dimbale ndax li ñu ragal dana ko dàq li ñu bëgg danañu ko xëccal te teraanga ji woom Sëriñ Tuubaa da ko liggéey te soxlawu ko kon kenn mënu leen ko xaj kon ne ñëpp gën a góor góorgóorlu dëgmal Sëñ Tuubaa te bañ a geesu loolu Sëñ Tuubaa buñ ko defee tamit dëgg ci ñun te yi ci res yëpp bañ ñoo fàbbi ndax lu ñu fàbbi dañu sonal rek te li ñu Sëñ Tuubaa defal mënuñ ko weesu kenn mënta ëpp lu am lu ëpp loolu boo koy seet sax dama ci yéen dama naan dama ci yéemu di wax ne ñi nga xam ne xamuñ luy àdduna xamuñ luy doxee doxeenu àdduna jéemoo ñoo sàkku ji mbirum àdduna dañoo yem ci léeg-léeg Sëriñ Tuubaa defal nga xam ne génn Tuubaa sax duñ ko def daanaka mën nañoo ba yem Dakar ñooñu sax la Sëriñ Tuubaa gën a dimbale loolu na kon leçon la boo xam ne ñun ñëpp ci war a jànge fa séene rek li ci son suñ kanam ñun ñëpp ñu gën a góor góorgóorlu ci fexe ba see ci mbiru Sëriñ Tuubaa te buñ ko génn wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbooloo mi ñu toog nag ñu tàllal sëriñ bi nga fasaale Ablaye Dia Sonico